sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu di leen suñu borom bi subhanahu ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalentendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci suñu émission bi ñu tuddee jataayu xam-xam ci lañuy woy ak yéen rek ñu tolloon ak yéen ci téereb sëriñ bi radiyallahu bi nga xam ne maam la tudde mafatihul jinaani wa maghaliqun niiraani suñu bind bi mujj ñoo ngi taxawoon ci bayit bi nga xam ne fala sëriñ bi doon wax ne ah, fa haazihil usulu uddat lil wusul wali tasawufi badat aydan wusul ci bayit boobu lañu taxawoon sëriñ bi di continuer rek bi wax ne awwaluha ah, bi ci njëkk ci usul yooyu mu waxoon mooy talaazumul kitaabi mooy taqoo téereb suñu borom bi subhanahu wa taala te mooy alquranul karim nee na ci njëkk ci usul yooyu mooy taqoo téereb suñu borom bi subhanahu wa taala te mooy alquranul karim di ko jàng waaye di ko settantal te loolu sëriñ bi radiyallahu anhu digal nañu ko ñu ngi doon wax uh, ci masalik naan adim tilawatan lisal kitaabi walaw salasatan min al ahzabi uh, soo demee ci uh, max uh, ci masalik sëriñ bi radiyallahu ko fay wax mu ne na nga sax ci di jàng téereb suñu borom bi subhanahu wa taala na nga ko saxal adim tilawatan lisal kitaabi na nga sax ci jàng téereb suñu borom bi subhanahu wa taala walaw salasatan min ahzabi doonte ñetti isib ci bis bu ne mu waxaat feneen ne wa afdalu zikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi ne na li gën ci li nit ki di zikkar de mooy di jàng téereb suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye ànd ci ak settantal ko ak di ko bàyyi xel maanaam ànd ci ak settantal ko ak di ko bàyyi xel nee na loolu moo gën ci li nit ki di di di di di zikkar waxaat feneen ne inna tilaawatal kitaabi mulku fa huwa liman yabxi najata fulku maanaam jàng téereb suñu borom subhanahu wa taala di nee na nguur la te it képp koo xam ne da ngay sàkku mucc de nee na ak gaal la goo xam ne soo ci tàbbee da nga mucc kon moo tax sëriñ bi ne usul yooyu nga xam ne moom la euh, nit ki war a euh, sóobu ngir mën a egg ci boromam bi subhanahu wa taala ba ci jiitu mooy euh, alquranul karim mooy talazumul kitab wa sunnatil muxtaari ak sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallama gis sawaa bi kay borom ga bi ci topp mooy ginnaaw boo takkoo alquranul karim di ko zikar maanaam di ko jàng te di ko settantal di jëfee li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala digle nga tekki nag di jéem a xam sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo ko xamee bu pare nga nga koy jëfee ndax sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne moo ñuy teg ci ak njub te moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu digaloon ne alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa irrasidin almahdi addu alayha binnawajis nee na maa ngi leen di dénk ci sama sunna waaye maa ngi leen di dénk it sunnaay ñi nga xam ne ñooy alxulafa irrasidun xalifa yu jub yi nga xam ne ñoom ñoo ma wuutu woon ñëw ci sama ginnaaw nee na na ngeen ko màtt bu dëgër na ngeen jàpp bu dëgër te bu leen ko sàggane yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ñu digaloon ne na ginnaaw bu ngeen jàppee alquran ba pare na ngeen jàpp ci sama sunna waaye na ngeen jàpp ci sunnaay saxaaba yi nga xam ne euh, mooy sunna su dëgër si nga xam ne mooy euh, diine te mooy lislaam ji nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi euh, ci jiima xam lépp loo xam ne moo di am njàngaleem waaye njàngale moomu nga xam ne mu dëppoo ak li nga xam ne moo tax suñu borom bi subhaanahu wa taala yónni ko ñu jima xam njàngale moomu di dox di ca jëm wa tarkul ahwaa'i ak bàyyi bànneex mooy bànneexu bakkan maanaam e, nit ki fexey ba lépp loo xam ne mooy bànneexu bakkanam rek muy fexey di juyoo ak bakkanam ci lépp loo xam ne moom la bëgg waaye lépp loo xam ne e, moom la e, dëgmal jëm ca ndax bànneex dafa doon loo xam ne wala bakkan dafa doon loo xam ne la muy poussé nit ki ci bànneex euh, la ca ëpp ëpp daanaka du doon loo xam ne mën naa jural nit ki euh, ngërëmal suñu borom waaye mën na koo jural njariñ loo xam ne ëllëg mën na koo jariñ moo tax kon bànneex nit ki dafa war di jooyoo ak moom waaye warut di euh, taqoo ak bànneexam ndax bu taqoo ak bànneexam Euh, bànneex ba mën na ko yóbbu foo xam ne euh, du doon fu euh, ko gënal waaye mën naa tax mu jooyoo ak ndigali suñu borom bi subhanahu wa la wa tarkul bidaa ak bàyyi bidaa bàyyi lépp loo xam ne bidaa la loo xam ne dañ ko sos te bokkul ci diine waaye doon lu rafet loo xam ne war nañ koo mën a jëfandikoo ndax bidaa dañuy wax ne am na bidaa bu rafet am na bidaa boo xam ne bidaa bu ñaaw la ba ca may matam moytandiku nag mooy bidaa bu ñaaw bi nga xam ne euh, maanaam jëf ko euh, amalu la benn njariñ te it doo ci jële euh, benn njariñ doo ci jële benn tuyaaba te it doonul loo xam ne am na cëslaay ci diine te it ñi nga xam ne ñooñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu sosuñu woon lu mel noonu kon yu mel noonu Euh, la ñuy bañ ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy sos bàyyi lépp loo xam ne bidaa la boo xam ne bidaa sania la mooy bidaa bu ñaaw ndax bu ñu xoolee bidaa bu rafet bokk na ci li nga xam ne mooy mawlid ci boppam muy gane àdduna ak bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy feetu euh, di ko di ko màggal di ci jàngal Qur'an bu ñëwee di ci jàngay xasida loolu yonent bi defu ko woon mën nañoo wax ne bidaa la luñ sos ginnaawam la waaye nag bidaa bu rafet la boo xam ne euh, nit ki mën na koo def jële ci ay tuyaaba yu bëree bari waaye nit ki mën na cee def suñu boroom defal ko ay xéewal defal ko ay yool yu bëree bëree bëri kazaka tabjilu suyuuxi ni ki noonu itam màggal ñi nga xam ne ñooy euh, sëriñ su baax si nga xam ne alxushaan ñooy way ragal yàlla yi maanaam sëriñ su baax si nga xam ne ay euh, sëriñ lan waaye dañoo doon ay sëriñ ba pare euh, ragal yàlla waaye xam li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala ñu nekk ca waaye xam li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala tere ñu moytandiku ko ñuy jaam yoo xam ne jaam yu ragal yàlla lan waaye jaam yu bàyyi xel yàlla lan euh, xam ne suñu borom subhanahu wa taala cër bi ñu amee muy cërub sëriñ suñu borom ma leen ko jox waaye ñu jël lépp jébbal ko sunu borom subhanahu wa taala waaye boole ci ag ragal yàlla gu mat ndax suñu borom subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy dëgg-dëgg jaam ñi de mooy ñi nga xam ne ñoo ragal suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ci eh, jaam ñi day innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ci jaam ñi de mooy way xam ñi te sëriñ soosu ak seex yooyu ñoom ñëpp ku ci ne da ngay xam ni nga xam ne loolu la suñu borom subhanahu wa taala santaane nga nekk ca waaye lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tere sëriñ su ragal yàlla soosu duñu ko jege waaye duñu ca euh, duñu duñu duñu ko jublu euh, kon bokk na ci li nga xam ne moom la ñu war a yittewoo mooy màggal sëriñ su mel noonu nga xam ne dañoo jël seen lépp euh, wéer ko ci suñu borom subhanahu wa taala waaye bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala Euh, nga xam ne euh, seen lépp euh, ci yàlla lañ koy delloo di jaamu suñu borom subhanahu wa taala te ànd ca ak ragal gu mat sëkk ru'yatu anzarin ak gis ngant maanaam di xool ngant li kulli xalxin ñeel bépp mbindeef idaamatul wirdi saxal wird li wajhil xaq ngir jëmmi aji dëggal ja wala jëmmi aju dëggu ja yàlla mi nga xam ne moom dëgg nee na bokk na ci yi nga xam ne war nañ koo bàyyi xel mooy ru'yatu anzarin mooy di dokal ngant li kulli xalqin ñeel bépp doomu adama maanaam dog ngant dafa dogal ngant doomu aadama dafa bokk ci li nga xam ne jikkooy ab jullit la yoo xam ne julit bi war na ko bàyyi xel te di ko jëfandikoo fu mu toll dogal ngant jullit bi mooy lan mooy nit ki romb la masala euh, ñàkk laa nuyu nga bañax euh, jàpp ne ñàkk nuyu gi nga bañ koo Euh, jëmal ne daf la romb tey ko bañ laa nuyu wala yu demee noonu waaye da ngay donkant ne xëy na ba mu may romb am xelam a nga ci leneen ba tax loola faab bi ko ba mënumaa nuyu euh, yu demee noonu ak lépp loo xam ne mën naa jëriñ jullit bi nga ko ciy dogal ngant yu mel noonu la ñuy euh, taamu bu baax a baax kon ru'yatu ahzarin li kulli li kulli xalqi idamatul werdi li wajhi xaqi moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne kon ngay dogal ngant euh, bépp mbindeef ci jëf ji mu mën a def rek nga koy dogal ngant di ko njort ne lu baax moo tax mu def ko te bañ caa am njort lu ñaaw ak saxal wird wird woo xam ne jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek mooy tax nga saxal ko te wird nag dafa doon lu màgg loo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu am na lu mu ci lu mu ci jàngal waaye am na lu mu ci leeral lu bëree bëree bari ci masalikul dinan euh, soo fa demee sëriñ bi radiyallahu anhu maa ngi fay wax ci bunt ba nga xam ne ca la jagleel wird mooy wax ne amma isa jahilta sanal wirdi faalam bi annahu azimal qasdi sëriñ bi radiyallahu anhu ne na su fekkee ne da nga réere mbirum wird day na xam ne wird lu màgg a màgg la te lu kawe kawe te lu ama am dara jala ñi ngi wax ci taarif bi ne wax xadduhu inda zawil ifaada shay'un murattabul min al ibada kon bu fekkoon ne dañ lay laaj tey werdu mooy la mooy ak jaamu yàlla goo xam ni nit ki daf ko organiser wutal ko waxtu wutal ko heure boo xam ne saabu bu jotee euh, mu taxaw def jaamu yàlla googa masalan tey ji nit ki euh, saxaloon ne saa bu jullee takkusaan bu pare dina def téeméeri astaghfirullah saxal ko loolu bu boobaa wérd lañ koy tuddee ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne waru la waaye eh, yow ci sa coobare yow yaa ko wutal waxtu saxal ko eh, di ko def saabu waxtu wo jotee eh, wérd nag doon ay façon waaye bari lool itam it bari ay anam yu ñu ko mën a defee moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu doon ñu wax ni képp koo xam ne dangay ngay da ngay da ngay wirdu woo jàpp rek ak ci tariixa bu mu man di bokk na nga jàpp ne tariixa yëpp ñoom ñoo bokk jubluwaay seen jubluwaay ñoom ñëpp mooy euh, jëm suñu borom subhanahu wa taala waaye topp suñu borom subhanahu wa rek moo tax ñuy saxal wirdu yooyee moo tax mu ne fa kullu wirdin murida li hadratillahi walan yahida sawaaun intama ila aljilaani aw li ahmad tijaani aw li simaahuma min al axtaabi kulluhum xataan ala sawaabi fa kulluhum yad'u al muridina ila taati rabbil arsi xaysuma jara bil istixaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad nee na wépp woo xam ne taalibe bi jël na ko te jublu caa egg ci peyi suñu borom bi subhanahu wa te jubal Euh, wérdu woowa moo xam fu mu man di askanoo moo xam ci a cheikh abdul xaadir al jilaani la askano wala ci a cheikh ahmad al tijaani wala keneen ku ñoom ñaar sax ci ñi nga xam ne ñooy axtaabi mooy euh, way jaamukatu yàlla yooyu nee na ndax ñoom ñëpp seen wérdu yooyu nga xam ne moom lañ yoroon day lenn lañ ci jublu woon rek mooy egg ci ci pays suñu borom subhanahu wa taala waaye jaamu ci suñu borom subhanahu taala te ñoom ñëpp ci ak njub lañ nekkoon waaye dañ doon woo taalibe ci topp suñu borom bi subhanahu wa taala kon képp koo xam ne yor nga werdu yooyu ba pare saxal ko waaye boole ci ak njub ah, boole ci ak njub sëriñ bi radiyallahu anhu nee na foo bëgg mu yóbbu la fa mën na la faa yóbbu kon werdu bul xeeb wenn werdu waaye bul xeeb kenn koo xam ne ci moom la werdu askanaloo askanoo waaye bul bul bul bul bul weddi itam wenn wird bul weddi itam li nga xam ne moom la wird mën a defal doomu aadama bi eh, ci ay may ak fi nga xam ne fa la ko mën a yóbbe moo tax boo demee ca eh, njeexintal la ba tey ma nga cay wax naa wa inna axastal wirda faltu bajjili umurahu xayral mazaya tanali nee na soo fekkee ne jël nga wird de ba di ko wird nee na nanga ko màggal ma nga ba màggal mbiri wérdu woowee nee na soo ko màggalee day lépp loo xam ne moo di ay may rek suñu borom subhanahu wa taala dana la ko defal maanaam suñu borom subhanahu wa taala dana la defal may yu bare bare bare bari euh, su fekkee ne euh, jël nga wérdu ba pare di ko màggal waaye di ko taxaw di ko def defee na nga xam ne euh, noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala bëggee te santaane ko noonu waaye nag amal la si maqaama wirdin ankara mustahzi an bihi li kurhin wasdira fazu jahalatin kama nassal alam ibnu ata illahi fi matnil xikam nee na nag ki nga xam ne nag moom dafa weddi eh, daraja ji nga xam ne werd na ko te reetaan ak weddi ñi nga xam ne ñoo koy taxawee di ko def rek eh, loolu rek la ci jublu ak bañ goo xam ne bañ na ko eh, ñi nga xam ne ñooy jëf mel noonu ak di leen ca seen jëf ja nga xam ne ñoom moom la ñuy def nee na kooku day nax ku ku nekk di def lu mel noonu rek na xam ne boroomu réer la te loolu euh, ibnu ataillah yaxal na ko ci matnul xikam na na yaxal na ko ci matnul xikam kon su fekkee ne yow euh, suñu borom subhanahu wa taala dogal na yow doo wérd jàppoo wérd kon ña nga xam ne ñoom ñoo koy def euh, bàyyi leen ca ñoom ñu continuer ca la nga xam ne moom la ñuy def ndax euh, wérd day du dara lu tudd suñu borom subhanahu wa taala waaye euh, saxal euh, tudd suñu borom subhanahu wa taala waaye saxal màggug suñu borom subhanahu wa taala rek la kon loolu jàpp naa ye képp koo xam ne xelu nga waroo koo bañ waaye itam waroo am lenn loo xam ne moom koy baatal kon ci bunt boobu la mu ci wax ci wérd bari na lool ba nga xam ne ma nga ca bu demee ba ca bëy di ca mujj sax ma ngi koy wax ne fa in kasilta an umuril wirdi fala tarum inkaaraha lil xeqdi nee na su fekkee ne yow da ngaa ba mënoo jël werd day nee na bul bul bul bul bul weddi eh, ak amum maanaam bul sàkkoo weddi eh, ak amuk eh, werd ngir ak coxor rek ak soxora ñi nga xam ne ñoo koy def nee na su fekkee daal yow tàyyel dugg na la ba mënoo werd nee na ña nga xam ne ñoo koy def nag bu leen ko bu leen ko bu leen ko gàkkalal waaye bu leen ko euh, ñaawalal euh, ngir bañ boo xam ne moom nga ko bañ rek euh, tax ngay def lu mel noonu ndax nee na fa in ajasta an wurudil mawridi fala tanq anhu axi min ahadi nee na su fekkee ne yow day maanaam am nga lompoñ wala am nga ak ñàkk jàppandeeg mën roote fa ñuy roote ne nag ka nga xam ne nag moom mën naa dem di roote bul ko gàllankoor bàyyi ko mu dem rooti bàyyi ko mu dem rooti kon wérd lu ama am solo la tey euh, ci bunt boobu li ci sëriñ bi radiyallahu anhu wax bari na waaye euh, dañ dañ koy tënku ci euh, bayit yooyu rek di wax ne lu ama am solo la te it mooy jaamu yàlla goo xam ne nit ki daf ko saxalal boppam ci waxtu saa bu mu def ko euh, ngir yokk ci ay tuyaabaam waaye yokk ci li nga xam ne moo di ay euh, aw yiwam te werdu yooyu ñuy saxal nag euh, lu ci jiitu mën nañ caa jiital alquran yeneen yoo xam ne moo cay topp doog caa topp mu continuer rek ba tey di wax ne wa tarku tawilin ak bàyyi di tawil ay wax wa ruxsatin ak bëgg ak yombal maa azimatin ànd ak ak alalazi ca la nga xam ne xat shuria yoonaleef na ko ne na bokk na ci li nga xam ne moom la murit bi gën a war a yittewoo mooy di bàyyi di tawil ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne daf koy tawil euh, na mu ko arrangé rek na mu ko arrangé euh, gis ab aaya boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala wax na ca mbir euh, mbir ma mu wax nga jàpp ne na mu ko waxee wala atte ba mu ca teg arrangé wu la nga jiima tawil aaya booba ngir bëgg caa euh, euh, ngir bëgg mu dëppoo ak namu la arrangé loolu euh, itam ab jullit daf ko war a ko bu baax a baax waaye itam jullit dafa war a bàyyi li nga xam ne mooy li ñuy tudde tatabon ruxas maanaam di wut ak yombal ci lan ci man day suñu borom subhanahu wa taala na nga nekk ci ngirub imam malik di ci attewoo ci atte yi nga xam ne moom la charian yaxal saa boo xamee ne imam malik ñëw na wax ci ab atte loo xam ne lu xaw a diis ci sa bakkan la nga nga nga wàcc fa atte booba dem ca beneen ngir boo xam ne moo ko gën a yombal euh, di bëgg ko fa atte woo loolu mooy tata bon roxas te loolu itam ab jullit daf ko war a moytandiku bu baax a baax a baax kon comme euh, diine ji nga tënku li nga xam ne moom lay euh, yaxal ci ay atte atte yooyu nanga nanga na nga ko sa kem kattan waaye itam Euh, mazhab bi nga xam ne ci nga tënku itam atte ya nga xam ne moom la dëppoo moo moom la euh, atte lislaam yi nga xam ne moo dëppoo ak mazhabam euh, boo ca xasee tënku na nga ca tënku continuer waaye bul def saa boo gisee atte boo xam ne dafa xaw a diis ci sa bakkan nga bëgg dem ci beneen mazhab di ko fa atte woo loolu mooy li ñuy tuddee ci lislaam wala ci alfiqha te tabon ruxas kon nit ki dafa war a ànd ak dogoom waaye ànd ak ngëm yàlla gu sëkk ci lépp loo xam ne lislaam euh, yoonal na ko ci kawam te mu war koo jëf mu fexey taxaw ca tem mu jëf ko na nga xam ne noonu la ko lislaam santaane te bañ caa wut yombal kon ñu ngi tuub te di wàcc foofu kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey